Euh, salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant seen teewaay Sénégal yëpp dañ doon xaar démb président de la république wax ban bés lañu ñu war a def élection yi ba nga xam ne dinañu mën a tànn ki koy wuutu ba bu mandaam jeexee le 2 avril kooku mën a jël service waaye li ñu dégg mooy dafa bañ wax bés bi nga xam ne bii ci la ñu war a def élection non seulement daf ko bañ parce que depuis le quinze lañu ko waxoon mu def ko defu ko mais dafa ne balaa mu ko def il faut mu def dialogue boo xam ne conseil constitutionnel sant ko kenn sant mu ne il faut mu waxtaan ak ñëpp ñëpp bi mooy ñi ci bokk ak ñi ci bokk. parce que limu mu concerné mooy candidat yi nga xamné conseil concerné validé la yemul ci lolu mu ne dinañu waxtané ndax dañuy yok liste beeg dañ koy wañi wala dañ koy reprendre dañu reprendre élection lolu nak amul leneen luñ koy tuddé ludul dul fasul yéene organiser élection mu jël nak baramam tek ko ci ne bu amul ku ko wuutu moom moo fi toog bu fekkee amul ku ko wuutu moom moo fi toog te moom moo war a fixer date bi nga xam ne ci la ñuy tabbee ki ko wutu moom mooy toog maa ba pare parce que boo tabul ki la wuutu kenn du la wuutu loolu moo dal Sénégal tey ñun ñëpp nag dañu temul ci waxtaan bu ñuy waxtaanee loolu benn waxtaan lañu mun a am mooy fixer na dat ñu xool date boobu yan insidence la am ci procédure bi ñu waxtaanee. ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui donc Sénégal ah à la communauté internationale nous voulons dire que nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et vous ne reconnaissez plus le Sénégal aujourd'hui le Sénégal est en train avec le président Macky Sall de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections qui étaient assimilées à une prolongation de mandat. On a demandé au président de fixer la date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais ne sont plus à jour parce que depuis le 15, on ne parle plus de meilleurs délais. On ne parle plus de plus bref délai. On est dans l'extrême urgence aujourd'hui. Maintenant, le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d'accord. Et comme les acteurs ne sont pas d'accord, je remets le dossier au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé. Et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Sénégal se trouve. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus. Euh, encore une fois président de la république euh, pour en tout cas li sénégalais yi di xaar ci mom pour mu wax ko li aduna bi yëpp di xaar ci mom pour mu wax ko waxu ci dara donc ñun li muy woote mooy concertation xawma la ko tuddee wala dialogue la ko tuddee jàpp nañ ne ñun demuñu ci yónneewuñu ci tooguñu ci table bu ñuy discuter lolu comme ni ko président Boubacar Camara waxé léegi liñuy xaar ci président de la république mooy mu dëggal décision bi nga xam ne moom conseil constitutionnel jël considérant quatorze li mu ci wax président dafa war organiser élection avant la fin de son mandat leneen lu mu def santuñu ko ko leneen lu mu def dilatoire parce que ci considérant boobu conseil constitutionnel neewu ko demal nga concerté wu wala nga dialogué wu

ñu ngi leen di interpeller pour ñu wax communauté internationale gën nañ leen gën a dégg ci li nga xam ne moo fi xew mais aussi am nañ ay kilifa fii ci réew mi ñu bëgg kilifa yi it génn wax ak président Macky Sall wax ak sénégalais yi ñu dégg bu baax a baax li nga xam ne ñu ngi koy def ah gileen leen jottali nuyoo ak yóbbante président suñu parti Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si du yàgg ci fan yu néew incha allah. dina génn def déclaration wax ak sénégalais yi wax ak président de la république wax ak opposition bi pour jàppale ñu ci combat bi nga xam ne combat boobu lañu nekk donc di woote sénégalais yi mobilisation bi du jeex mobilisation bi dañ koy continuer tant que amuñu li ñu bëgg moo tax lëndi ak mardi ñu ngi xalaat moom buy jalagee ay concerté wu ñu nit dina am taxawaay boo xam ne daañu ko am incha allah lëndi ak mardi Euh, collectif bi dina leen wax ban taxawaay lañ ciy am euh, comme ça ñëpp gën a mobiliser wu am na aussi ay mobilisation yoo xam ne prévoir nañ ko ci week-end bi ba bëgg ñëpp mobiliser wu ba li nga xam ne jàpp nañ ne jaaduwul ci réew mi élection bi ñu war a organiser à temps ñu organise ko président le 2 avril mu jël ay bagaasam kii ñu sénégalais yi wóolu falu ñu réew mi dellu ci liggéey li ma wax démb lay waxaat tey waa Sénégal sonn nañu ci politique bu dul jeex nous ñu soxla mooy dellu ci liggéey réew mi dellu ci réconciliation nañu bàyyi président de la république mënul continuer de tenir le pays en haleine comme ça nit ñi dañu sonn nous réew mi kenn fi kenn doxatul soxla parce que élection tey la suba la la semaine prochaine la mais bu yeureumul bopam na yeureum wa senegal ñi ko xamne dañ ko wolu jox ko lepp pendant 12 ans ñu bàyyi ko mu dérouler warul def li nga xamne mu ngi koy def donc ñuy japp ne c'est pas encore trop tard pour qu'il pour qu'il se ressaisisse et nous voulons qu'il se ressaisisse mu bayyi li nga xamne ci la nek dilatoire bi amul ndari may sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah